mbokk internet Kewoulo TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñu ngi fii si hôpital régional de kafrine hôpital Kierno Brahima Ndawbu Kafrine nouveau hôpital récemment inauguré par le président de la République hôpital bi mo accueillir ñu xamanteni euh, blessé ñu xamanteni ñom ñoo amone ci accident C'est xamante amna ci 4 h du matin manam ce dimanche 8 janvier 2023 accident bu grave boo xamante ni ba bilan bo xamanteni ñu ngi koy wax bilan bu lourd la won mais finalement dernier bilan officiel bo xamanteni jot nañ ko dégg le président de la république ba mu ñëwé fi né si visite am wax 39 personnes ñoo ci mujjee ñak seen bakken ak plusieurs blessés manam des centaines de blessés jamono ji nak euh, pratiquement comme li ngeen ko fekkee ni euh na waaye nak koor yi xamanteni parmi les 39 ñoo xamanteni ay euh, euh ñom ñoo fi euh, ñak seen bakken ñom ñoo ci ñak ñàkk seen bakkan ñoom 20 la ñu identifié gum mu des ñeneen ñoo xamante ni identification baa nga en cours te état wax ni prise en charge bi dinañ def le ba jël ko en charge ange ñu ngi fii si hôpital régional bu Kaffrine te réaction yi xamante ni euh, dégg dégg jot nañ ko dégg maanaam situation bi compliqué na du passé yëpp la ñu mu jël en charge comme ndaw si lu mu ko mujjee waxee waaw euh, Sagna comme ni nga ko waxee euh, doon na tiis bi nga xamante ne moom moo daal euh, askanu Sénégal ndax tey ci fajar askanu Sénégal yow ak nakar ba nga xamante ne moom moo ñu dal tey bu ñu egsee fii nii ci hôpital régional bu Kaffrine comme ni nga ko waxee sànq mu doon hôpital bu nga xamante ne bi ñu ko inauguré yàggul te tiis bi ni dal ci kawam yaram daw na ndax bi ñu dugsee ci biir hôpital bi ñëw daja ak njaboot ñi nga xamante ne ñoom ñoo lorle boo dégloo seen témoignage te kéwul ko jukil ci image yi nga xamante ne ñoom lañ fi eh, jëlee eh, sa yaram dina daw ndax doon na lu méttee méttee méttee ndax comme ni nga ko waxee 39 personnes ñu xëy ci benn jour ci ab l'accident ñàkk ci seen bakkan ci réew yi nga xamante ne eh, Sénégal doon lu nga xamante ne lu méttee méttee la mais sànni leneen tamit lu nga xamante ne peut-être que mën nañ kaa wax te ñu jëmale ko ci askanu Sénégal mooy saa ñu nekkee ci yoon bi chauffeur si wala client saa ñu nekkee ci yoon bi dañoo war a xel ci ne ci oto lañ nekk ndax sànq léegi nii rek ne euh, ni ñu dajal ci ci yoon bi dafa mel ni sax euh, réew mi euh, amul leçon bi nga xamantene mom lañu wara tiré ci euh, li nga xamantene ne ñu dal parce que auto yi ñi nga xamantene ñom lañu dajal yëpp nañ ci biir fees na ba ñeneen yeneen client yi si kaw la lañ aj donc mu doon li nga xamantene tay tay tay tey askan wi rawatina euh, gouvernement bi war na ci jël ay matukay war na ci jël ay mesure nga xamantene mesure mesures yu sévères la ndax euh, ñu mëna a daxal li nga xamantene li ñu mel comme li nga xamantene mom moom ñu dal tay ci tay ci fajar voilà moom ange bo xamé bo xolé pratiquement chaque année ay gouvernement euh du président de la république jël ay mesures ci li jëm walu accident de la circulation récemment accident bu amoon na xaw ma ban dëkk la woon huit décès ñu jël ay mesures wax nañu dinañ ko appliquer mais malheureusement balégi léegi application mesure noonu dee des boo xoolee bu ñu jëlee réew bu xamante ne moo ngi si tout près du Sénégal mooy Gambie Gambie kenn sañu faa yabu ba pare nga euh, jël ay clients toog loolu leen si Versailles Versailles kenn du fa toog loolu Gambie réussir nañu loolu mais malheureusement ce n'est pas le cas au Sénégal boo xoolee tamit euh, li indi cause accident bi tamit wax nañu ni benn bus moo euh, moom la bunam toj mu fekk si beneen bus bi manam tali bi bu fekkante ne yaatu na tamit lolu benen bus bi dina mën a éviter loolu maanaam bu ñu comportement chauffeur yi tamit war nañ mën wax tamit lo xamanteni moy infrastructure routière yi il faut autorité tamit buñu ñu tamit buñu jëlé ay mesures ñu mën wax lo xamanteni momé infrastructure routière yi tali bi mën yaatu tout mu am ay deux voies de deux fois bu lolu buñ ko amé defe tamit mën wañi wàññi yu melni wa président de la république annoncé na lo xamanteni mom moy euh inter euh, comment inter euh, conseil interministériel bu wara am suba lundi manam 9 janvier ginaaw loolu tamit décrété na loo xamante ne mooy national manam ñu ngi fii suñu cher internet Kéwoulo TV ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax ci sen euh, kóolute si suñu chaîne d'information information imagé di ngeen ko am en toute exclusivité sur seen chaîne d'information. C'est information yoo fi lañ ko jëlé ak ñoo xamante ñoom ñoy les victimes euh famille des victimes ñoo xamanté des accidentés en Marie Sambou. euh saña comme euh, ni nga ko waxee xam naa euh, gouvernement bi dina jël ay matukay comme euh, ni nga ko waxee sànq léegi nii ndax umpale nañu képp ku nga xamanté ne day voyagé ci biir réew mi da ngay gis né tali yi dañoo xat trop trop trop donc lool nak président de la République war ci jël ay matukay tali bëpp tali bi nga xamanté bu bees té ñu narka défar mu doon tali bu nga xamanté dina yaatu su ko défé euh auto yi nuñu nuñu nu vitesse à vitesse ñaari auto yi au moins dinañu mëna rombanté rombante noonu ci ci ci yoon yi donc euh, comme ni nga ko waxee sànq léegi rek ñuy jox euh, mbokku internet Kéwoulo TV euh, dig daje comme ni nga ko waxee sànq léegi nii rek ñu ngi fii nii ci biir hôpital régional bu Kaffrine lépp li nga xamante ne jëlee nañ ko fii comme ci xibaar wala ci image nañ leen ko jukkil ndax yéen tax ñun ñuy xëy suba ba ngoon ñuy daw di leen wute ay information saña